ciy am mbégte lool di and chaîne Chronique TV Tay nak ñu ngi plage de Ngor di dem ci île bi fas dalal gan gu mag ci sen émission bi ñuy wax ñu wax ci gan ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal muy ko na lool ci walum cinéma bi gan Ibrahima muy gan film

defee dinañ leen rencontré incha allah bu ko ñu gën a yaatal. incha allah waa kon ñu dem. ñu dem waaw. internet Chronique TV ñu ngi yeesalaat seen suñu nuyoo ci yéen di leen euh, dalal jàmm seen émission ñu wax ci comme niñ ko waxee woon sànq tey na dañoo dalal mag euh, gan gu mag koo xam ne mi ngi yëngu ci wàllum cinéma te kenn dootu ko présenté ndax bi mu nekkee ci cinéma ak léegi amaan nañu ci bëri ci ñun juddooguñu euh, tey ñu nar a waxtaanee thème bii di thème bu am solo di maanaam suñu série yu bees yi ndax nekkuñu di yàq valeur yi nga xam ne moom la Sénégal am. tay nak ñu ngi dalal Ibrahima Mbaye Thié nek acteur bu mak ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet yi di la remercier bu baax ci and bi nga and ak ñu ci émission bi tay waaw jërëjëf ñu ngi leen di ñu leen di nuyu di leen dalal di kontaan tamit ci euh, joko bi di nuyu ñi ñi sétane ñëpp di leen wax euh, ñu ngi leen di ñu leen di jaajëfal bu baax waaw yeen dal dal len jam d'accord legui ñu dugg ci waxtaan bi est-ce que mën nga ñu wax lan moy cinéma mom dans sa globalité manam lan moy cinéma cinéma kay la kay la bo xamanteni euh ñi koy def wala ñi koy jëfëndiko ñu tuddé len ay cinéaste euh, dañ ci jublu wane ci dara Mm-hmm. wane ci moo xam euh, seen réew la moo xam seen histoire la moo xam euh, lu xew ci àdduna tey ñu war ci àddu mm-hmm. ñu génne ci seen xalaat moo xam euh, li yàlla sàkk te mu wër ñu mm-hmm. te duñ ciy bàyyi xel ñoom ñu dem filmer loolu mën na doon sax ay sànq lañ Euh, cinéma mooy mooy loo xamante ni day dugg biir géej sax wan doomu aadama li nga xamante ni bëtam mënu koo daj wala loxoom mënu koo daj mm-hmm. cinéma jumtukaay la jumtukaay la bu boo xamante ni euh, loolu moo ko tax a jóg euh, mu am nag li nga xamante ni moo ci nekk te xaw a doy waar xëy na bu ñu duggee ci biir euh, waxtaan wi dinañ ci dinañ ci àgg waaye daal euh, ci tënk rek cinéma moom jumtukaay la jumtukaay la c'est un art di jumtukaay boo xamante ni euh, artistes yi dañ koy jëfandikoo ñu leen di tuddee ay cinéastes waaw. ndax cinéma boobu am na différence ak série. série. benn catégorie la du dëgg. Mm-hmm. dafa mel ne boo duggee ci cinéma nga ni catégorie bi documentaire la catégorie bi série la bi court métrage la bi long métrage bu ci nekk dafa am xàmmee mm-hmm. am na mooy xàmmee yooyu. bu court métrage film cinéma la bo xamanteni euh manam mën na tambalé benn minute ba 26 minutes. court métrage. court métrage long dafay long métrage fay dépasser lolu. documentaire ci bir documentaire euh, mën na tambalé benn minute ba jusqu'à l'infini. Mhm. comprendre nga. Mhm mais euh, li tax ñu xamé catégorie bi mooy euh, na ngay jëfëndiko ak sujet ba ngay aborder ak na ngay jëfëndiko outil bi ñuy wax outil muy euh, outil cinématographique donc dafa mel na bind dafa am kuy talif am ko xamanteni roman lay bind du dëgg am ko xamanteni ay lépp lay bind donc xam nga yooyu ay catégorie la mhm. donc tamit non la mel ci cinéma série ben la bo xamanteni ci audiovisuel ñu tuddé ko série mhm. série nak buñ ko waxé manam luy luy ñew di ñewat lay doon ay épisode ak épisode ay épisode lu ñuy top di top, bu mu am jeexital mhm. donc lolu moy série légui norme yi nga xamanteni mom lañuy filmer norme yoyu fek mi ngi depo lu ñu mëna tuddé cinéma lolu du génn ci cinéma muy série bi wala muy documentaire bi loolu du génn ci cinéma. Hmm, normes yi nag normes yi c' est technique c' est waaw yeneen affaire la quoi. même normes yi la ñoom yëpp ñoom catégorie yëpp même normes yi. film yi moo ciy am pour mu bokk ci cinéma moom faaw mu méngóog normes yi nga xamante ni moom la cinéma teg. Mhm. ba nit bu ko xoolee. Mhm. mu mucc ayib du dëgg. Mhm. Euh, sur le plan technique. mu mucc ayib sur le plan waaw artistique. du dëgg. waaw ñaar yooyu ñoo fi nekk. Euh, ana lan moo wute lii di cinéma sénégalais bu njëkk mooy yéen seen temps temps bu njëkk bi ngeen nekk jeune di jouer ak cinéma bi nga cinéma bu tay bi. cinéma rek la. amul ay changement maanaam. comme bu maanaam euh, gis nga bu njëkk man mënuma ci wax lu bare. Mhm. ndax euh, maag yow même génération la. mais daan nañ la gis ngay jouer ci lu mel ni Carmen lu mel ni Tableau Ferraille. loolu loolu yaa c' est en deux mille quatre xaw ma yàggul comprendre nga xam nga nit moom. Ah. Euh, mooy li may wax toujours da ngay dund euh, lu toll ne de ans. Mhm. ci la ñuy nattee. Mhm. mën nañ ci natt dara. waaw wala ñu toog ba cent ans ñu natt ci dara. Mhm. mais li am solo de euh, tey ci histoire. li ñu mën a jàpp ci cinéma mooy euh, sunu cinquante ans de cinéma ñun feete nañ ko bu yàgg bu dëgg mm-hmm. euh, maanaam ci ki njëkk a defar film ba fi ñu toll nii cinquante ans yi passé nañ ko léegi dañuy wax ni ñu ngi dugg ci presque soixante dix ans yi mm-hmm. mais euh, pour man cinéma bu nekk ak euh, ka koy def ak jamonoom du dëgg mhm. te jamono nag wax dëgg yàlla fii ak mhm. euh, booboog léegi mhm. li fi soppeeku bare na nag waaye yëpp cinéma lañ leen di tuddee mooy la may wax rek fekk mi ngi ci norme yi fekk tegu na parce que am na lu ñu filmé démb démb goo ngay wax noonu te teguwul ci norme yi am na tamit tey lu ñu filmé loo xamante ni tuddee ko cinéma te teguwul ci norme yi donc loolu amul solo li am solo mooy euh, pour mu dëppoog li ñuy tuddee cinéma faw mu am norme yi mm. norme yooyu wax naa la ko mooy norm artistique yi ak norme technique yi du dëgg mm-hmm. waaw loolu la mais gis nañ ni que amaana moderniser nañ mu bari ci biir cinéma bi sen au Sénégal parce que gis nañ ni dans les séries dañuy def yoo xam ne méngoowul woon ak euh, yenn suñu valeurs yi ba nga gis ni yenn ah yenn ñi nga xam ne sax dañuy défendre valeur sénégalais dañuy jug sax di ci kaas mais est-ce que loolu nekkul bëgg moderniser bëgg beesal bëgg wone feeñal ni nëbbu woon nekkul loolu tax ñuy gis yenn ci biir série waaw euh, dafa am ñaari ñaari mbir yoo xamante ni il faut nit ñi bàyyi ci seen xel mm-hmm. gannaaw ci cinéma la ñuy wax te duma la doon wax sànq norme yi mm-hmm. cinéma dafa am nu muy doxee norme yooyu ma la wax mhm. buñ ko tegee fële bu matee bañ teg ko fële léegi nag dañuy dugg ci li nga xamante ni mooy li ci biir lan lay nettali nit ku nekk ak li ngay nettali. Mhm. yow tey buñ la ne woon nettali nga am loo nettali. effectivement buñ la woon keneen na nettali leneen mu am leneen lu mu nettali. Mhm. parce que loolu nga bëgg a nettali. dëgg li ngay nettali euh, am na koo xamante ni xamu ko. te yow xam nga ko. dëgg kook ko xamul. Mhm. kooku ko xamul xëy na moom mën na am mbégteel ci li nga koy li nga koy xamal. dëgg du dëgg. Mhm. tey si tey jii nii bu ñu waxantee dëgg euh, li nga xamante ni tey moo moom la euh, sunu yaay yi doon dund. du dëgg mhm. valeur yooyu ñu doon dund du dëgg est-ce que tey. est-ce que tay seeni doom ans ba ans wala ba ans est-ce que ñoñu ñu les mêmes valeurs. non non ci société bi rek la wax. les mêmes valeurs Tu comprends comprendre nga mhm. bu cinéma mom day da fay comme lima la wax nit ki da koy jël pour wone lim bëgg ok nit ki bu bëgg tey lii moo xew. pas xew bugguma bugguma bugguma expression boobu xew xam nga baaxul maanaam tey lii moo am. te bu fekkente ni objectivement loolu it dëgg am na. du dëgg euh, muy lu baax comme muy leneen. ki ko xamul ki nga xamante ni mus ci teg bëtam walla musu ko gis. Euh, wala xale boo xamante ne xëy na moom tolloogul ci xam loolu da koy choqué du dëgg. mais loolu même bu fekkee. lu am la. waaw gis nañ ni dañ ko doon nëbb mais ñun mais série dañ koy fësal maanaam ñoom dañ koy fësal wane ko te fii ah, dafa nekk dëkk boo xam ne. bu ñuy seetaan. gis nga ni famille bi yëpp ay toog di seetaanandoo. waaw léegi loolu noonu est-ce que war nañ ko wane est-ce que norme la ñu wane ko. lo xamne même boudé amna am si dëkk bi sax ñi ñi dañ koy neub waaw dafa am lu jitu sunu série lo xamanteni ay série la yu fi daan jaar du dëgg. Mhm. ñu daan tok di ko seetaanandoo ay famille sénégalaise yu bare di top, di ko seetaanandoo ak seen dom ñen ñi ñen ñi di wax seen dom jog leen gën dem am ragné ci ni li am lo xamanteni bëgguñu seen i doom gis ko. Mhm. ñu ne leen jug leen ngeen dem ñoom ñu toog di ko seetaan wala keneen koo xamante ne moom xëy na bu loolu tàmbalee mu ne fay leen télé bi. Mhm. du dëgg. Mhm. léegi tey loolu noonu loolu day dox nit da ko yor ci poosam télévision boobu. waaw ak téléphone yi. waaw. bu ko bëggee télécharger télécharger ko seetaan ko. dëgg la. dégg wax bi. man pour man euh euh dan nañ tok avant téléfilm avant avant ki nu toti série yi di daw ci yenn kër yi euh li li tay ci tay ji ni ñukoy gis mu tambalé genn ni loolu dan na xew ci yenen xet yo xamanteni ñom ñoko dan def ñuy tok diko sétan ñun ñuy toog di ko bëgguma tuddu mais lool la. Mhm. ñuy tok diko sétane diko mhm. di ko consommer. en famille. duñu ñu déranger. hmm néna la amna petite catégorie bo xamanteni ni ci daan wax seen i doom leen ngeen dem. deug la. té loolu lu néew la. Mhm. légui bu jappé seen gimmi ndax dañoo waru lan mo tax ñu waru ñaari doomu sénégalais yi def nangam. té ñu gis leen ni mo moo leen wala la ñuy def moo leen moo leen moo leen yéem bu fekkee lañuy ñuy def yéemu leen maanaam kon xam nañ ni kon loolu ay doomu aadama ñu ngi koy def moo xam mm-hmm. France la moo xam feneen la mm-hmm. mais daal ay doomu aadama la mm-hmm. bu fekkente ni nag dañu dañoo waaru ndax doom ñaari doomu Sénégal moo koy def foofu la la question bi nga posé daal di intervenir mooy merci bu boobaa que ñu wara ñëk interroger moy borom film bi lan mo tax mom mo parce que moko décider acteur yi bi wala actrice yi soko soko def li ñuy def donc koku lañu wara interpeller buñ ko interpeller mo xam ci comme émission bu mel nii la mën na la wax ni la mom lool da ko dundu mën na la wax ni la da ko gis fan mu ne la ci dëkk bii kon legi société bi mo xawa mo moo moo war a seetaan mhm. te buñ ko bëggee delloo ci euh, euh valeur yoy nga wax ak mœurs yoy mhm. euh dañuy ndëppal société bi yëpp mhm. du rek cinéma rek la ñuy ndëppal du dëgg <laughs> dëgg la dëkk bëpp lañuy sam sàmm ndëppal leen fajaat ñëpp te loolu nak du yomb du yomb ndax euh, euh, ni ma gisee mbir yi dem ni mm. waxuma sax série waxuma série de série mm-hmm. man série ba legui ni am ci jangat bu personnel bo xamanteni ni man man man koy def cinéma la effectivement donc euh, am lu bare lo xamanteni ni mm-hmm. rek la ci mën yam jangat rek la ci mën am mm-hmm. tok nopi leneen li ci euh euh li nga xamanteni ni mo gëna a ci man tay moy portable yi nga xamanteni comme bi nga gaddu ni té lélé ñu filmé lo xamanteni sanni ko mm-hmm. lo xamanteni amul sax ci biir série dëgg la lu graw lool lo xamanteni amul ci biir série mm-hmm. ñu ne cybercriminalité am na fi nanga lo xamanteni du film mom du film réalité ay nit a bet ay nit wala di leen yëndu wala nangam ak nangam mm-hmm. comprendre nga ay xalé ci seen biir mel ñu nekk plage dëgg la du dëgg Euh, loué seen kabano ndeke li li li li ñuy def ak li ñuy wax yëpp ñu ngi koy bu mu paree partagé ko mu mu law ci biir dëkk bi ak yenn kilifa yoo xamante ni fii euh, nangam ak nangam ak nangam donc société bi moo am problème te loolu kenn téléfilm bu te bu ñii ñii nii bu ñii di def téléfilm yi àgg ñu foofu ci def-def ak guñ fa. am na te bii gën a garaaw. Mhm.

wul wëlbatee ba yow buñ la ko tégalé di nga xamni li li lay junj mais duñ ci àgg doo gis mu ag ci loolu dañ koy jang tay ah. ku tepp ni damay defi film motam bagage ci xawa yaqku nak xawa jaxaso ku am caméra rek jadd fi amo amo ce que j'appelle l'initiation au cinéma mhm. amo culture cinématographique yow ci sa walu bop xamoo yaay kan xamoo ciosan gi nga bok bu la laajoon histoire du Sénégal sax li nga ci xam barewul wala culture yi fi nekk li nga ci les li nga xam ne xamoo ko nga jub yor sa caméra ànd ak say équipe bind benn scénario boo xamante ni ci bopp koñ bee nga gis ni diw def na nangam diw nga ne loolu gis naa ko effectivement gis nga ko nga filmé ko <laughs> ah doy na waar de. c'est de. pour ñu génn ci <laughs> pour ñu génn ci ndax mënuñoo taxaw ni amul. Uh-huh. bu ñu taxawee ne amul ñoom danañ taxaw ni am na. Uh-huh. léegi gannaaw ñun ak ñoom am na fu ñu bokkee. Uh-huh. muy ci société ba pare cinéma tamit nekk jumtukaay boo xamante ni du fawukaay. dëgg nañu xoolaat société bi. gaa yi toog ñu delloowaat buum ca. mboy mboy ga cinéma ñu xam ni outil la boo xamante ni bu dangereux la. surtout. bu baax la mais bu dangereux la. ñun tamit ñun tamit ñu delluwaat seetuwaat une société bu tollee fenn fi ba am lu koy lu koy heurté dafa war a toog mu xoolaat comprendre mu seetuwaat xool est-ce que man réellement man lañ may wan lu tax ñu wan ma man ma mel nii du ñëpp am na foo xamante ni ba léegi nii boo fa demee lañ nga fa fekkoon démb moom nga fa fekk tey ci ay valeur ba léegi ma nga fa lan mo tax djugu fa lan mo tax ci yenen contrat yi yenen yeneen parti bo fa demee gis ni loolu ko na fa lan mo tax nga nga mën dem ci fenen doo ko fa sax fek dang koy lamb ba daj ko doo ko sax fek ñu deug parce que yalla euh, dafa ñu dimbalé ñu nek ñuy vivre ben époque bo xamanteni technologie bi xarañ lool du deug ñepp nga fi feur fëri dugg ci réseau yé ku nek lo bëgg sétane nga koy sétane loo bëgg xool nga xool ko fi nga toog du dëgg mhm. kon am na problème dëgg la moi je pense que problème bi ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp dëgg la bu ñu desee ci waxtaanu scène yu hors norme yooyu gis nañ ni que théâtre yu njëkk yi il y a quelques années de cela ñoom euh, dañ naan tourner scène yu doy waar yoo xam ne amaana sax suñu série yi defaguñ ko ndax série yi di nga gis ni dina am scène yoo xam ne dañ ko xaw a wodd tuuti bu ñu gisee ñooñu nga xam ne joué woon nañ ci wàll théâtre yu mel noonu ba am scène yu garaaw yooyu ñoom tey dañuy gis ñenn ci ñoom ñi nga xam ne dañuy xas ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di def série yi di tourner yenn seen yi yow en tant que acteur bi nga xam ne dund nga ñaari époque yëpp ana nga xalaat ci loolu. man benn époque laa dund mooy wax naa la ko. mooy maanaam dund nga. noo defal tànk rek man moom euh, bul ma yóbbu époque bële man man. <laughs> Ah. maag maag bokk benn génération époque bii. du dëgg dama la mag xëy na am loo xamante ni it fekkewu ko dama ko jàng parce que sama métier moo bëgg ma xam man fan laa jóge bëgg ma xam sama métier bii nii may may may def kañ la fi tàmbale ba fii bu ma ko tey jii mënee toog di wax c'est parce que dama ko jàng histoire du cinéma jàng histoire du théâtre mhm. yooyu fekkewu ma ko époque boobu fekkewu ma sama ay bay lañu. <laughs> mais moo waxee loolu si pour parler moy dañ la gis nga jouer ci lu melni madame Brouette. madame Brouette Carmen ci lu melni Tableau Ferraille. madame Brouette 2002 la waaw. léegi man nak époque so quelques années motax mané la yow mi vivre kon théâtre il y a 20 ans ak théâtre légui ban gis-gis nga am ci ñi nga xamni ñom togo toog daan nañ jouer yenn scènes yi te daaw ñu ci won casse légui tay ñu ñëw diko kaas ci xalé yi nga xamné ñom ñi ngi def la même chose amana sax lo xamné mo gëna wor ñom niñ doon def. parce que dama la wax ben affaire cinéma cinéma cadre strict bu cinéma nga xamanteni dafa am fuñ ko daan sétané boko gisé télé c'est que télé dem na ba ben instant mu mu am ku ko télé bi jënd ko ñu mën ko tek mhm. té lool sax daawul gaaw. cinéma moo amoon place fan la woon moo doon cinéma salle de cinéma télévision am place am télévision fan la fan mooy place biir salon wala biir néeg du dëgg noonu la demee woon léegi audiovisuel moo dem moo développé ba léegi cinéma soxlaatul dem da toog mu fekk si la sa biir néeg comprendre wala sa biir portable léegi nak léegi nak ki nga ki dem ba xam lolu léegi nak yow yaay am ay fàggu yo yoo xamante yow yaw yaay wajal sa bop ak wajal sa njabot nga xam ni kat yow la nga dan bu fekke ku am 60 ans la da nga dan jugge fi and ak sa jabar euh, dem ci salle de cinéma film mhm. delu suat xalé yi duñ dem mhm. la nga cey jangat ya ko xam mhm. ngeen ñibbi siwaat léegi yi ci walu bopam yow amatoo sax jotu yow ci télé bi ngay toog ñoom dañ lay bàyyi ak télé bi ñoom seen portable la dëgg la. luñ ci bëgg a gis te buñ koy gis doo ko fekkee. Mhm. pass la ñuy jënd rek dugg fi ñu bëgg a dugg. effectivement. waaw léegi moom moo tax man la société bi nañu nañu xoolaat tuuti suñu bopp. Mhm. affaire bi euh, comme li Wasis Diop wax tout récemment nee na il faut savoir déjouer.

nga jëndi boobu teg di gëstu di xool di dem di nga gis lu bon di nga gis lu loo xamante ni baaxul. Mhm. léegi yow ça dépend ci yow ban préparation lañ la préparé. Mhm. ba yi ngay gis yëpp nga mën ko euh, encaisser xam nan la. Mhm. ak naka la. loolu nag problème mu société la. problème mu ëtt la problème mu pénc la problème mu biir kër la. du deug mhm. waaw lolu nañ ko lijeenti buñ ko pousse buñ ko buux rek gaay yi nga xamantene dañuy def série deug la ñi def série ci lañ bok parce que ci réew mi lañ bok li ñi def bu fekkee dañ ne dañ ko gis ba tax ñu ñëmé ko filmer du deug keneen ko tok ni len lolu amu fi wala sam même bu fekkee am na fi mhm. sàmmonte len ak nangam waxtaan bi pour man fofu la wara nek quoi mhm. ak li ñu nak nag de dëgg la ak lo xamanteni ñewul ñëwagul ko sax waaw ah. xaaral ba ci kanam tuuti. ndax gënul ñu bàyyi ñu jël complètement dis euh, raxas seen maanaam ñu bàyyi di jouer seen yooyu ngir bañ a heurter société bi ñu bàyyi di ko jouer ci biir série man man li may mën a wax mooy gannaaw ba ma waxee ni société bi nañ seetaat suñu bopp ma ne ñi nga xamante ni dañuy def série mm-hmm. nañu fexe ñoom it jangi wat cinéma bama cité fi ni amna réalisateur yu mag en Afrique yo xamanteni def nañ ay film woné ñom li ñuy bëgg woné té ñom mais dañ ko wod de manière artistique ba nga xamanteni yow mi top di nga xamni nangam li kat la waji di junju di ko yek té mu am dimension artistique bu mag bo xamanteni lool nak dañ koy jaggi mm-hmm. lool du juk force caméra rek ni li gis nako damay filmer li det lool nak ben affaire la Euh, lépp lu yàq d'accordu ma ci. dëgg lépp lu yàqu lu ñu war a defaraat la li yàqoogul nañ ko sàmm ba mu bañ yàqu li yàqu ba pare li yàqu ba pare nañ ko sànni fële. Mm-hmm. ñett yooyu kilifa gu mag moo nu ko bàyyeeloon muy sëñ Saliou yàlla yàlla yokk leeram li yàqoogul nañ ko sàmm ba bu mu yàqu. Mm-hmm. te nag am na foo xamante ni ba léegi boo fa demee. loolu du fa daw de liy waaj yàqu nañ ko wattu li yàqu ba pare li nga xam ne yàqu na ba pare waaw loolu nañ ko sànni bala muy yàq leneen fii wala effectivement nañ ko mhm. waaw loolu daal laa ci ana yan solution nga xalaat ni war nañ ko mën a teg ba mën a développer cinéma sénégalais sans pour autant ñu ñuy heurter suñu mœurs suñu bonne valeur yi. nañ leen woo ñu waxtaan ak ñoom. comprendre nga. Mhm. xam nga li may wax scélérat daf fi nekk day xaar ba mbir am mu censuré comprendre nga. Mhm. fekk déjà loolu jàll na. Mhm. c'est bien liggéey la ñuy def du dëgg man pour man solution bi may proposer mooy balaa loolu di am. ñom ñu am ci droit de regard mën ko xol saytu ko lu ci baxul ñu ne li bu mu jall nga signé ñu signé bis bu ñu xeye gis mu jall ñu xam nak da ngay waru ñu mëna top li ñuy top benen bi ci décide moy amna ñu ño xamanteni ni fi dañuy juggé mhm. fenen ñew indi sen projet de film war ko tourner fii Sénégal ak ñun du dëgg direction du cinéma ak Sénéra ñoom it nañ ci nañ ciy bàyyi xel dëgg la lii rek laa wax mais nga foog ni mën nañ développer lii di cinéma bi sans pour autant seen genre seen yooyu bañ si am parce que gis nañ ni que cinéma yi léegi daanaka seen yooyu dafa dem ba bokku ci cinéma euh, du du dépendre wul ci scène mo xam scène bu bu euh lu lu lu lu rafet la lu rafetul wala je ne sais pas. cinéma euh naa la kay la bo xamanteni nit ki da koy jël en tant que cinéaste bu fekkee nak ku xam kay bi la ñak ko xam it baaxul moy waral yenn yu bare bare bare comprendre mais nit ku ko xam deug di ko respecter ba nga xamanteni euh la nga cey def. Euh, mu don lu dëgg lu la ñor don luy defar même bu fekkente ne luy choqué la mhm. mais nga djublu ci defar mais tamit nang ko xam mhm. xam ko moy tax nga mën ko euh, am noko jare ba nga xamanteni dañ danañ xam sa message en tant qu'africain danañ xam ni message bi nga bëgg dawal té do choqué kenn mais tay tay ñaari école cinéma ñofi nak comme ñaari école théâtre ñofi nak benn bi mooy école bi nga xamante ni day former beneen bi ci des mooy yoon wi nga xamante ni tey jii am na fi te kenn mënu ko bañ mooy ñoo xamante ni dañu bëgg dara jóg dem di ko tarbiya di ko tarbiya di ko tarbiya ba xam ko ba man ko léegi bu loolu weesoo loolu du doy de il faut nga dem jàngiwaat nag dafa am yoo xamante ni pour nga xam ko il faut nga dem jàngiwaat yow yaay kan foo bokk comprendre nga voilà waaye yàlla na fekk na koy incarné yow ba pare comprendre nga waaw ça n'a rien à ak jugement bu may porté ci nit ki du ma porté jugement ci kenn du ma porté jugement ci benn série je pose la grande problématique de notre société tey boo xamante ni euh, am na lu mu doon seetaan lu juge woon ca àll ba wax naa la ko au bi mm-hmm. loolu léegi nekkatu fi leneen a ñëw loo xamante ni ñoom ñun ñu ni nen la bële bi mu fi ñëwee dañ ko doon consommé mm-hmm. du dëgg lan moo taxoon teguñu woon garde fou yi ca boobu mm-hmm. ni déjà film yii nii duñ ko dugal sunu réew liggéey boobu defuñu ko woon de ah waaw. dëgg la léegi tey ñu teg garde-fou yi ndax ñun waruñu koo def dëgg la ci cosaan ak ci valeur yu am ci dëkk bi. Mhm. ñun waruñu koo def. Mhm. mais ñoom waruñu woon seetaan lële dugg fi ba yàq. lu baree baree bare mhm. ndax fa la fa la yàqu-yàq yi jóge de. ba boo doxee ci mbedd mi léegi euh, maanaam ah. ñu tubaab yi moom ah. amuñu amatuñu ah, différence. te ñoom. ñoom culture la ci ñoom. ñoom culture la ci ñoom. ñoom loolu loolu euh, loolu loolu du problème boo boo bu ñaar taxawoon fii léegi di di di di di di di fóonante par exemple ci tubaab ñoom loolu lu ñuy lu ñuy bëgg lay doon lu ñuy tàccu lay doon dañuy romb parce que dañu dañuy jàpp ni ci ñun ni nga mën a manifester sa mbëggeel ci ci nit moy ñu nga ñew ba ci pénc bi ci mbedd mi euh, dara sax du leen tey ngeen wara mëna laxas laxaso ba fonante ñom non lañ koy apprécier mm-hmm. waaw waaw légui ñun ñun bobu fekk na bobu ñun ah. ñu daan muur di fat mm-hmm. ah mm-hmm. waaw ah, nu mu dafa ah. mo tax nañ nañ tek problème bi ñu waxtaan ko <laughs> justement léegi nii yaa ngi wax ci wàllum cinéma. dafa accessible tellement que ku ko jàngu sax mën da ci ñëw dugg jouer ko facilement sans problème. te gis nañ ni cinéma sénégalais bi teg na fi tànk loolu loolu loolu léegi ba ñi nga xam ni sax jànguñu ko amaana ñoo ëpp ñoo ñoo ci gën a nekk sax di jouer que ñi nga xam ni jàng nañ ko est-ce que loolu nekkul li yàq tuuti cinéma bi. en quelque yooyu yëpp am na ay defar defar am na ay yàqu-yàqu mooy li ma la wax rek parce que il faut nga dem xam ku ci nekk la ko ca dugal am na ñoo xamante ni dañuy business nañ jaay rek mu baax mu bon nañ jaay rek jaay. ngeen loolu loo leen nga xam ne jàng ngeen ko. non dama la waa ji nga xamante ni dafa fay ay impôt fay léppam tijji maison de production fas yéene liggéey xaalis ah? kan moo ko mën a tere am ñoo xamante ni siiw jaral na leen lu ne ci àdduna rey leen sax tëralal fii bo bës ne leen defal taatu nen ma filmer ñun la amul benn problème tey ma toj fii bës laay am tey bës la bëggoon kooku boo ne ko sax waneel sa dënd bi moom mu wàccee ba ci suuf dëgg la ah, parce que buzz dafa xew am na ñu koy wut à n'importe quel prix. Mhm. am na ñuy saraxu nit pour ñu jël leen ci film bu ma la jëlee est-ce que di nga ma defal nangam nga ne ko naa la defal nangam. loolu yëpp ndax bëgg siiw. waaw am na ñoo xamante ni nag dañ ci am cër ndax dañ ko bëgg. Mhm. jàngi nañ ko wala ñu ngi koy tarbiya te buñ ci pare euh, fu ñu taxaw di ko def di nga leen jox cër. Mhm. lii la. ku ci nekk nag ci réew mii am na fi te ku ci ne fii nga juddoo nekk sénégalais lan nga ci man yow ci ku bëgg ki bëgg bës gi te pare pour def lu ko neex dara mënoo ci dara da ngay fii ci ci interview bi di ko defaan wala moom ñu filmer ko parce que moom dafa pare pour am bës futteeku nga ne non suñu merci yeeg suñu kii suñu kii yaa ngi yàqu non non non non yaramam la wane yaramam la joxe du dëgg kii filmer filmer yow doo ko def man du ko def waaw mi ngi noonu léegi nag gannaaw am na ñuy def am ñoo xamante ni jomb nañu nañu xoolaat société bi kii caméra ci société bi la bokk ki bëgg a futteeku bay def nangam ak nangam boobu di la choqué yow ci société bii la bokk nañ taxañ ñëpp ci benn penc nañ taaj ñëpp ci benn penc mhm. nguur gi am na ci wàll ñëpp am nañ ci wàll père de famille yeeg ñëpp am nañ ci wàll ñu taaj affaire bi ñu segg ko du deug ñu waxtane ko xol naka lañ ci waw té nak mom budul série portable yaay fi dé bu ko faté dé té nit ku nek ak portable am ñoy ñoy and ndelaw effectivement boko jëndul pass amna nu mëna lijeenté pass am effectivement lim bëgg sétane dina ko sétane mhm. est-ce que contrôle mëna am instant yi ci image mënul nek ah mënul nek waaw dañoo tollu fofu léegi nag li nga xamante ne nag ñoo ko bokk ñun ñëpp muy image yu Sénégal li may wax rek nañ ko jéem a rafetal mais pour ñu rafetal ko il faut ñun suñu wàllu bopp ñu rafetal suñu nekkin rafetal suñu suñu suñu doxalin mhm. rafetal suñuy diggante quoi du dëgg mhm. te ñu yar xale yi dëgg nañ bàyyi xale yi ñu seetaan xale bu am anniversaire bu ne iPhone 7 laa bëgg nga jëndali ko iPhone te yow leer la la ne après do ci am contrôle. deug la. ñak ko ko jëndal mel na jaral na la ray sa bopp. Mhm. da dafa graw dal mhm. euh euh amna yo xamanteni bokay wax fi ku melni man tukki dem fu ne tok fi di def ar euh, buma koy wax fi dañ ñen ñi sax dañ nan ma da ngay man ku ne ma ku ne ma ku ne ma tayle sama anniversaire dama lay ñaanal. te fekk am na leneen lu xew. Mhm. lu xew sax yow. lu xew. waaw maanaam. bu ñu nee tey la sama anniversaire yéen nu ngeen koy defee. nuñ koy féetee. waaw joyeux anniversaire. làkkoo sa làkk. Ah. <laughs> te nee nañ anniversaire bu nekk moom danay gën a jegel dee. <laughs> dafa am yu bare daal yoo xamante ni ñu ngi noonu daal. léegi dañuy justement bu ñu sikkandikoo ci li nga wax léegi nii ci euh, ku nekk da ngay bëgg jaay sa série tout que ku ñëw ku bëgg siwo wala ku ñëw rek. am na série yoo xamante ni gis nañ ni am dama lay dog am na mm-hmm. série yoo xamante ni wane wuñu liy choqué mais la wane mu ngi wëlbati xelu sénégalais yu bëri. dëgg la te moo gën a garaaw foo gis fo gis ñaar ñuy fonante. dëgg la loolu moom am na. li ñuy wax euh, euh, c'est des violeurs de de de de conscience commune maanaam dañuy yàq parce que dañuy créer li ñuy wax mimétisme toppandoo dañ lay wan loo xamante ni ndekete loolu du live bi. am fii parce que dañuy gis sax ci yenn série ñuy dund la belle vie tellement ko da ngay foog looloo am am na ñeneen ñoo xamante ni bu ñooñu weesoo am na ñeneen ñoo xamante ni ci seenu ndof nga baal ma de comme man ci seenu tolluwaay euh, lañuy lañuy demee dëgg la euh, ba tax lu bari day dafay dafay mujj yàqu dëgg la kay loolu moom am waaw kon kon loolu ñuy wax noonu naan yooyu noonu maa ngi wax ne am na leneen lu ko gën a garaaw sax loo xamante ne ñu ngi koy seetaan chaque jour. dañuy gis ni maison de production yi ñoom euh, dañuy nekk dans dañoo mel ni ñu nekk ci course tout le temps chaque jour kenn bëgg a génne benn produit ci marché bi est-ce que nekkul loolu noonu moo tax euh, ñu ñuy génne ay produits yoo xam ne togguñu ko ba ñu ñor ba mu ñor ba nga xam ni ngay gis yenn série yoo xam ne amul sens walla dara. man daal li ma la mën a wax daal mooy loolu mooy lenn gars yi seen ay maison de production la ñuy fay lañ yor di fay ay impôt télé yi it télé yi seen ay télévision la ñu yor ay télévision privée dëgg di wut visibilité parce que dañuy liggéey. effectivement. fekk ñu ngi sàmmoon teg li nga xamante ni mooy àq ak yelleefu yi ñu yi leen tënk ak àdduna ko ak Sénégal muy ay impôts yu kenn xamul ñu tegal leen ay normes normes yoo xamante ni ñoom. danañ ci dox du dëgg mais il faut mu laaj waxtaan doo bàyyi ba nit ki jënd ba pare ba tàmbale jaayam dem ba ci digg bi nga ne ko daggal non nañu am droit de regard ci affaire bi balaa balaa muy daw par exemple wala waaw man pour man noonu laa ko gisee ñun ñëpp daal nañu nañu laxasaayu waay. gis nañ ne que euh, nekkoon nga fi directeur artistique euh, Marodi fait de Marodi TV spécialement ci série boobu noonu di Pod et Marichou euh, ana lan moo tax gisatuñ la Marodi parce que gëj nañ la fa gis lool. man bokuma Marodi. dang fay jouer rek acteur kase nga fa. waaw wala une fois nek naa fa comme li nga wax directeur artistique waaw récemment joué na ci l'ordre ninki nanka marodi bindu ko soxna benga moko bindu mais marodi euh, mo mo géré won production exécutive bi kon yow mais yow da ngay liggéey ak ñom man bo bëggé mag yow bu ñu déggowé ñu liggéey kon ñom buñ la wowaté tay ci benen liggéey di nga dem buma arranger légui ma dem liggéey bu len arranger mu

transmission. yor vraiment loo xamante ni euh, dama parce que lu ne sama xol la yéene naa ko am na ñu ma ko yéene. dama ko bëgg dama ko bëgg joxe quoi bokk ak ñoom. kon ne en même temps di di exercer suma métier waaw. ñu ngi ci njeexital émission bi ba pare. ñu bëggoon nga jox xale yi quelques conseils rek ñi nga xam ni ñoom bëgg nañ cinéma bëgg nañ ci wàll ak ñi nga xam ne ñoo nga jox leen quelques conseils rek ci tënk. nañu dem nañ jàng. nañ jàng parce que aduna euh, bi tay dafa soxé ci ci jang jang nak bi ci ñëk moy nga jang yow fi nga dëkk yaay kan ak lu tax nga tay nga mëna tok ci euh, tay li nga tok ni li nga tok ni muy plage bu féex bi ni mhm. yor sa iphone mhm. euh, tek sa caméra di filmer mhm. dafa am lu jitu lu tax lu la may loolu dëgg la dañ ko dañ ko fii taroon na trop dañ ko liggéey am ñu ko xeex am ñu jiitu ci cinéma am ñu jiitu ci journalisme ñoo xamante ay kilifa lañu ñoo xamante ni ba léegi nii boo leen di seetaan da ngay gis ni sax njàng ga ñu amoon ak euh, doy na waar néew na tey ñu ko am nañ jàng mhm. nit lépp lu muy def moom ci wàllu jëmmu boppam pour mu xam Euh, nangam lolu faw mu xam bopam ba pare bu xame bopam ba pare nak lolu mu song nonu war ko war ko def na fexé ba xam lan moy ciosan li ba ba tay ba fim ci tollu bu ko defé rek yalla mënu koo dimbal ci lu bare bare ñu bàyyi la nga tàggoog mo ko internet yi parce que émission bi jeex na ba pare waaw ma ngi leen di nuyu yeen ñep di leen di ñaan yalla na am jamm jërëjëf. Euh, mbokk yi nii lañ leen indiloon tey ci seen euh, numéro xew-xew bu tey bi di leen jëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne di jaajëfal suñu invité bi di jaajëfal itam suñu équipe technique bi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw